Internautes Dakar Actu, dalen ak jamm ñoo ngi leen di nuyu am bu baax andat ak yeen ci émission de di Actu Débat Actu Débat tey euh, le ministre euh, des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement muy maître Elhaz M. monsieur le ministre je vous maa ngi lay nuyu euh, monsieur Ba di la gërëm di la sant di nuyu ñi ñuy déglu ñëpp. am mbégte dalal la si Actu Débat man euh, ci man la gën a ëppee mbégte bi. alors monsieur le ministre euh, laata ñuy xuus si débat bi mën nañ xam nan ngay dundee situation bi àdduna bi nekkee jamono ji. waaw situation bi moom ni ko ñëpp di dundee rek lañ koy dundee mooy situation bu metti situation bu difficile situation aussi bu complexe. moo xam ne nii euh, li ñuy xeex ñu ngi koy xeex pour euh, aar sunu askan euh, aar sunu njaboot aar surtout sunu ay liggéeykat yi nga xam ne ñoom la ñu yàlla booleel ñuy liggéey ak ñoom mais aar surtout ci secteur bi nga xam ne moom la ma président Macky Sall dénk transporteur yi ak seen njaboot ñi ci jiitu mooy chauffeur yi sunu xeex yëpp yëpp yëpp moy fexé ba euh, maladie bi nga xamné ñu koy ci dëkk bi ak euh, transporteur euh, bañ ci ben chauffeur bañ ci mais aussi ben client bañ ci bañ ci loru day laaj ay day aussi passe-passe. ñu jël nga président digal nañu ko gannaaw bu mu état d'urgence Euh, ñun ñëpp ñu war ci tënku parce que loolu moom mooy recommandation corps médical bi nga xam ne tey ci xeex bi bu doon dañuy def image dañu naan ñoom ñooy soldats yi nga xam ñoo nekk au front ah, ki nekk au front nag di xeex jàkkaarloog mbir mi xam li ci nekk ak jafe-jafe yi bu la ne taxawel nii nga jàppale ma ci xeex bi ba nombre de malaat yi may am du du du du bari loolu ñun ñëpp ñoo leen ci war a jàppale dimbale leen ci. <laughs> justement monsieur le ministre yaa ngi koy wax léegi mooy sa secteur transport tey moom nga jiite am ay mesures yoo xamante ni jotoon ngeen ko jël li ci mel ni limitation des nombre de place si biir oto yi waaye tamit li ci mel ni suspension du transport interurbain diggante dëkk ak dëkk est-ce que mën nañ xam fan ngeen toll si application mesures yooyu sur le terrain. waaw ce qu'il faut comprendre mooy xeex bi euh, d'abord ministère de la santé ak OMS ñoom ñëpp dañu am. ay euh, stratification ci niveau de bi dañ naan xex bi euh, ci ñetti niveau la tollu manam niveau 1 niveau 2 niveau 3 à chaque niveau il tollu day am ay mesures yi accompagner euh, le combat qui correspond à ce niveau d'alerte ci ci donc niveau 1 nous ci tollo moy nañu jël pour décourager nit ñi ñu utiliser les moyens de transport public ci jamono bi ñu donc bo déjà plan de lutte bi nga xam ne génne woon nañ ko euh, mesures yi ñu jëloon bu njëkk mooy décourager les les citoyens ñu jël transport public décourager citoyens yi bu dee yëg nañ ci sen yaram euh, lu nuroog symptômes yi nga xam ne mooy maladie bi nga bañ a jël transport public encourager citoyens yi bu dee dañuy jël transport public balaa ñu koy yéeg nañu raxas seen loxo bu ñu wàccee nañu raxas seen loxo balaa ñuy dellu seen kër loolu aussi ay ñu pour wax leen ko wax leen ne aussi bu leen nangooti surnombre ci oto yi parce que surnombre dafay indi entassement te ñi nga xam ne ñooy faj bi nee ay nit yu dajaloo di laalante di jonjante te kenn bu ko ci amee dana ko mën a wàllu moroom ndax jonjante bi ak jàkkaarloo bi ak ak ak ak diis ak riisu bi. Mhm. jegewantoo bi jegewantoo bi donc loolu aussi ñu wax leen ko ci période boobu aussi niveau un may rappeler dañ ne woon transporteurs yi na ngeen sàmmonte ak mesure d'hygiène yi nga xam ministère de la santé wax na d'abord auto yi na ngeen koy raxas ci biir ak ci biti raxas ko nag raxas boo xam moo dëppoo ak li nga xam ne moom moo mën a xeex li nga xam ne mooy virus bi mooy ci biir partie yi nga xam ne c'est des parties sensibles ñu waxoon leen ko fi nga xam nit ñi dañ fay teg seen loxo fi nga xam nit ñi dañ fay jafandu fi nga xam nit ñi dañ fay toog ñu def fa ay produits yoo xam ne ay désinfectants yu approprié ba nga xam ne euh, kenn du dugg ci biir transport public di ci gaañu ñu wax ko taxi yi wax ko transport njaganjaay wax ko car wax ko waa aftu yëpp Nous sommes d'accord sur le d'accord avec nous, nag que réglementation transport urbain Nous le nombre de places autorisées pour chaque catégorie de véhicule véhicule si vous avez transport urbain wax nañ la transport urbain nombre de places bi wax nañ carte grise Nous qui souvent des dérogation parce que nous nañu que Dakar 50 de la population urbaine est là presque 70 des fonctionnaires fi écoles yi hôpitaux yi nombre de véhicules yi transport urbain doyul lég capacité bi ñu transport urbain de ko du ko mat tolérance ci surnombre manam li ñuy surcharge ñu may leen tolérance parce que xam nañ ne heure de pointe yi ñëpp dañuy bëgg a dem liggéey te léeg-léeg euh, ku nekk da ngay bëgg a ak sa liggéey bi nga xam yàlla may na la ko ba doo ci am benn tolof-tolof booy dem di liggéey donc loolu moo taxoon ñu def tolérance yooyu mais bi ñu ñëwee nag ba jamono ñëw ñu ne leen ah tolérance yooyu nag dañ koy suspendre léegi dootul amati surnombre ñëpp dañuy toog ba pare dootul amati ci biir ay entassement parce que boobu amoon na interdiction de regroupement ku ne ne regroupement moom espace bu ne lay am day am ci oto day am ci kër day am ci jàkka day am ci yeneen place ay lieu public, etc. donc ñu ne comme am interdiction de regroupement loolu nañ ko limité donc loolu moo nekkoon niveau 1 bi bi ñu nak nag ba président jël yenen nouvelle mesure parce que xeex bi toll na foo xam ne nekkatul woon rek ay cas importé parce que niveau 1 bi mooy ay cas importé nous avons ba ñuy gis ay contamination communautaire léegi nag ñu dugg ci niveau 2 niveau 2 bi mooy nañ leen yokkaat aussi benn benn cran ci ci xeex bi nga xam ne moom président de état d'urgence L'État d'urgence ba pare ne def limitation du transport interurbain parce que li koy waral mooy gis nañu ne da ngay gis ku ñu testé nga jógee ci kër wala ñu confiner la fenn nga jógee foofu daw booy ja fooy dem doo doxee sa tànk pour dem Kédougou jógee Dakar dem Kédougou doo joxee sa tànk pour dem dakaar jógee dem Thiès doo doxee sa tànk pour jógee Thiès dem dem yi donc xam nañ ne transport rek nga mën a jël moo tax ñu ne kon transport interurbain bi nga xam ne am na risque nit am feebar bi dugg ci wàll ko ñu bari ñu tasaaroo dem ci seeni kër walaat ko ñu bari tassaro dem ci ay gox walaat ko ñu bari nañ leen ko limiter genre confinement géographique motax ñu indi li euh, restriction interdiction de transport interurbain wat nak aussi yeneen mesure yu parce que gis nañu ne même bu transport urbain muy on boko des nonu am kenn ko qui parce que Dakar am na fi te Dakar moom mooy concentré presque 70 du transport urbain nga bayiko ko noonu muy tasaaroo ci biir transport bi nit ñi protéger wuñu soo moytul di nga am chauffeur bo xamni ne dina ko am parce que ko xam euh, chaque jour di nga yégal ak wàcce lu tollu ci 1000 euh, personnes moy yaangi yaangi yok sa potentiel de risque yaangi yok sa sa probabilité de risque am feebar bi moo ñu né

Euh, bu ñu ko mané ñu def masque parce que nak feebar bi nit mën nako am du développer ben symptôme du am fièvre du am tou du am euh, euh, éternuement du am dara mu nekk porteur sain diko wal ñoo xamné bo mo dañuy développer symptôme donc lool motax ñu ne kon nañ leen respecter distance yi nga xamné wax nañ ko ku ci mëna def sa gant bala ngay dugg ci transport en commun nga def sa gant ku ci mëna def sa masque boy dugg transport en commun nga def sa masque parce que yooyu yëpp aussi ay xeetu protection la yo xamné da ngay jàkkaarloog nit te xamoo ndax amna fièvre bi wala amul fièvre bi. d'accord monsieur le ministre lolu yëpp ay xeetu mesure la yo xamanteni ni jël ngeen ko ngir ñu xéxali di fièvre bi mais constat bi moy bo duggé ci biir dëkk bi pratiquement apparemment nit ñi nuñ doon euh, défé non lañuy défé parce que tay bo xolé tata yi dañuy duy ba mu fess donte sax nit ñi duñu taxaw mais quand même on ne respecte pas c'est-à-dire li nga waxone limitation espace bi nga xamanteni mom mo am ci auto euh, yi waye tamit dañuy gis car rapide car rapide xam nga bo nekké ci capital capitale Dakar de bokk nañ ci de transport en commun yi ñu gën utiliser gis nañ ñooñu tamit nit ñi dañuy comme d'habitude est-ce que nekkut un manquement par rapport ak l'application mesure bi nga nous avons ngeen jël. waaw moo tax rek profiter ci occasion pour encore une fois euh, woowaat ñi nous xam ne ñoom ñooy liggéey ci transport mooy transporteurs yi chauffeurs yi que aussi les clients parce que nous avons loo xam ne mesure la suñ ko jëlee ñëpp appliquer. liñ leen di moytuloo ñëpp ko war a moytul seen bopp parce que yaa ngi dugg ci kaar daw di daw dépense peut-être mais olof njaay nee na balaa nga naan naam da nga fay nekk euh, yaa ngi dugg ci kaar di fay sa xaalis di accepter ñu tànc la wàll la feebar yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi tooñ sa njaboot yaa ngi tooñ ñi la yaakaar yaa ngi dugg sa xaalis sa ci kaar di daw di dem liggéeyi peut-être parce que da ngay bañ ñu licencier la mais am na lu gën a licenciement parce que yàlla moom moom moom wërsëg moom moo koy jox ku ko ku ku ko soob mais nag am na loo xam ne yaa koy moytul sa bopp li ngay daw euh, defe naa jaru ko li ñu lay dawloo moo gën moo ëpp priorité li nga xam ne moom ngay daw pour ay dépenses ak yooyu moo tax man ma jàpp ne euh, ñi nga xam ne liggéey ci transport recommandation yii ñun ñoo ko jëlandoo woon ma koy rappeler ñoo ko jëlandoo woon tënk ko ci ku ñu jox la ku ne ne man kenn du ma a gore ci ni ñuy def ni ñuy defee application bi du ma wax sax ay police ak gendarmerie pour ñu def liggéey bi pense que ñooñu am nañ tey comme médecins yi ni ñu amee liggéey euh, police ak gendarmerie am nañ beneen xeetu liggéey nekk ci ay transport di di wàññi ku nekk sa responsable bopp nga ku nekk euh, da nga war a taxaw taxawaayu médecin bi nga xam ne mooy xeex feebar bi ku nekk da nga war a taxaw taxawaayu président Macky ba nga xam ne tey taxawaay yëpp ñoo war a nekk taxawaay yu rafet comme ni ko population yëpp defee comme ni ko opinion publique yëpp defee leader d' opinion yëpp def ko mais nga gis euh, chef de parti yi assemblée nationale euh, au conseil des collectivités ñëpp dugal sen loxo pour taxaw pour que mesures yi mën a mu am ñoo xam ne du ñu sàmmonteeg moom wax dëgg yàlla nañ xool seen diggante ak yàlla xool seen diggante ak population bi xool seen diggante ak société bi li ci des nag Euh, comme nous ma dit, la force restera à la loi Nous li ñu mën mooy jël ay mesures ne ni la ñu war a defe ku sàmmontewul ak moom dafa am ñoo xam ne la yàlla jox ci ni ñu organiser suñu république ans pour les techniques ñi ci yoon aussi nous leen di à plus de vigilance à plus de rigueur. alors lan ce ñu mën exactement monsieur le ministre si ay sanctions par rapport à ñi nga xamante ni du pas respecter mesures yooyu ngeen tëg waaw mën nañ dem retirer le agréments de transport d'abord, les sanctions administratives parce que bu ñu lay jox agrément dañ la ko jox ne la da ngay respecté yoon ku ñu jox agrément de transport ñu gis ne yow ak licence d'exploitation d'un véhicule ñu gis ne yow licence bi ñu la jox sàmmonte ak mbir mi dañ lay teg ci yoon moo tax maa ngi demandé directeur des transports routiers ak euh, les brigades de contrôle du ministère de de de transport ñu génn si biti samonté ak li nga xamné moy mesure yu ñu jël jël numéro auto euh, yi nga xamné ñom ñoom ñoo dul nekk ci yoon jël numéro ak tour transporteurs yi nga xam ñoom moom oto yooyu mais ñu teg leen ci fi nga xam ne d' ñun li nga xam ne moom la ñu a jël comme sanction sur le plan administratif ñu jël ko li ci des nag ñu bàyyi ko ak police ak gendarmerie ak tribunal bi nga xam ne ñoom la euh, loolu nekk seen loxo. d' accord ministre ñu dellu suwaat si li nga xamante ni moom moo nekk suspension transport interurbain Nous avons vu yenn région yu gën a Sénégal dañuy approvisionner en termes de euh, nourriture si si Dakar euh, est-ce que c'est-à-dire que les euh, gros porteurs sont concernés par ces mesures yi nga xam ne occasion ñëw parce que y a toute confusion. parce que signal est ñu déjà y a transport de marchandises yu ñu bloqué au niveau de différents corridors du Sénégal C'est xam malentendu mais mesure bi nga ministre de l'Intérieur l'intérieur pour euh, interdire le transport euh, interurbain a clairement ci euh, arrêté le transport de marchandises. Le ci président bi mi wax discours aussi ci message sur ci état d'urgence, ne euh, nous di jël ay mesures pour freiner l'économie du Sénégal donc une mesure waruñu ko jël boo xam ne da ngay mesure euh, transport parce que le transport alimente l'économie. alimenter économie donc euh, fonction support le l'activité économique et sociale donc je précise encore une fois comme nous avons arrêté bi pas de restriction sur le transport de marchandises amul à part bien sûr les heures de couvre-feu heures de couvre-feu yi nag et sinon interurbain urbain pour le transport de marchandises livrer de ay marchandises Lolo, euh, amul benn restriction à restriction <laughs> alors monsieur le ministre nous euh, yi bëri ay conséquences ci citoyens yi lu ci melni tay bo démé ci garage yi dañoo yok li nga xamanteni mom mo nek prix du transport est-ce que yéen waru leen won encadrer ba nga xamanteni tay ben chauffeur du ñeme jël responsabilité nan day yok li nga xamanteni mom mo nek prix du transport bi surtout ci état bi ñu nek lolu aussi euh, tarif transport dañ ko fixé donc dafa am euh, décret bu fixer tarif transport bi ñu jëlé mesure aussi wax nañ leen ne leen mesure yi warul engager wala warul entraîner benn augmentation sur les tarifs donc loolu aussi préciser naa ko defe naa ci bi ñuy def point de presse wax nañ leen ko aussi ñoom tamit xam nañ ko li ci des nag mooy euh, sénégalais moom euh, saa bu xatee mu gën a xatal waaw saa bu xatee mu gën a xatal bu ñuy dem euh, rentrée scolaire kay bu jar benn dañu koy def ñaar bu ñuy def tabaski bu xar di jar cinquante mille ñu yóbbu ko deux cent mille loolu lañ ko war a bàyyi parce que jàpp naa ne nag wax dëgg yàlla nag nekkuñu ci réew boo xam ne lu waaye neex def dañu nekk ci réew boo xam ne aussi il faut ñu bàyyi xel charte réew mi bàyyi xel aussi euh, citoyens yi nga xam ne wax dëgg yàlla ay góorgóorlu lañu ñu bañ leen a yokkal loo xam ne nii bokkul ci yëf yi ku mën a dawal sa oto ci condition yi nga xam ne wax nañ ko parce que da nga jàpp ne da nga am mission de service public vraiment dawalal sa oto wàccoonte ak li nga xam ne moom la ñu wax moo gën nga ci profité di def naka sudul noonu yoon di dal sa kaw wala nit ñi di ñaawal sa der te nag am na loo xam ne wutin daal xaalis sellal ko moom am na ci solo. Mhm. lan ngeen fas yéene def si ñi nga xamante ni respecté wuñ loolu li nga wax. mooy li ma wax rek mooy euh, malheureusement on sera obligé déjà li nga xam ne ay euh, euh, li nga xam ne doxalin la boo xam ne dañu ko condamné sur le plan pénal loolu ministère yi nga xam ne ñoo yor wàllu woowu police ak gendarmerie ak tribunal. ñoom war nañu taxaw def seen liggéey ñi nga xam ne ay affaire tarif la dafa am ministre du commerce nga xam ne moom mooy yore lépp loo xam ne ay prix ak ay tarif ci dëkk bi war nañu taxaw tem aussi protéger citoyens yi nga xam ne dañu war a euh, jël transport public ñun ñii ci suñu bopp war nañu taxaw tem wax naa ko léegi wax naa directeur des transports routiers na génne euh, service am yi ñu taxaw ci gaar yi taxaw ci arrêt yi réglementé yëf yi jël euh, des constatations des PV de constatation ñi nga xam ne dañuy def transport bi te dëppoo wuñu ak li nga xam ne recommandation yi ñu leen def ak arrêté yi nga xam moom lañ leen jox mais ñu ñu ñu jël ay procédure pour nangu seen agrément nangu seen licence d'exploitation parce que nag yoon moom euh, mënul am ñaar mënul am ñett ci dëkk moom ben bat mo fi sax moy bat bi nga xam moy batu président de la République ak tëralin ni nga xam gouvernement bi euh, dañ koy tëral li ci dess nak ku nek day jël ay responsabilités. <laughs> alors monsieur le ministre euh, tey euh, service public Dakar Dem Dikk ci service public la bokk est-ce que yakaro tey arrêté woon lepp lu xétok walum tata yeeg bus yek dem dikk bi ñu jël service public Dakar Dem Dikk jox len walum transport bi ci biir dëkk bi tamit gënutoon que ñu bàyyi ko nii ku nekk di dox comme nu ma la neexee sans autant respecter règlement yi nga xamante ne moom ngeen tëral waaw loolu xalaatu citoyen la mën naa ko mën nañu ko jël rek dugal ko ci panier de réflexion bi mais li ma jàpp daal déjà aussi il faut reconnaître que ne am na moment boo xam transport opérateur public bi dafa nërmeelu ñu xamee woon ko ci turu Sotrac boobu euh, dafa fekk ay euh, kilifa yu gëm seen bopp gëm seen réew jël seen xaalis dugal ko ci transport euh, nekk ay opérateur privé ñu agréé leen ñuy liggéey euh, te mbir mi yaatu na yaatu boo xam ne jàpp naa ne ñëpp xaj nañ ci afti xaj na ci euh, kaar njaga njaay xaj nañ ci karapeti xaj nañ ci Dakar dem dikk am na ci solo beneen société publique aussi wala privé sax bu tolloo ak li nga xam moom la bëgg ci transport ah, xaj nañ ci parce que gis wax naa leen ne offre de transport ci ci Dakar dafa insuffisante par rapport à la demande de transport loolu moy indi d'ailleurs phénomène yi nga gis yëpp nit ñi di yok ay tarif parce que nit ñi buñu yakamté il faut ñu dugg ci auto yi dem liggéey euh, muy am ay khat lo, muy am ay problème euh, entassement parce que simplement auto yi bariwul comme auto yi bariwul aussi plan de transport yi souvent boy xol les temps d'attente sont sont extrêmement longs Manam da ngay tok ci arrêt xaar pendant 20 minutes 30 minutes mais bu auto yi bari woon kaaru kaaru njaganjaay yi euh, kaaru aftu yu bari Euh, kaaru Dakar dem dikk yi bari jàpp naa ne euh, xat-xatloo boobu sax dootul am donc xat-xatloo bi li koy indi mooy offre de transport bi moo xaw a insuffisante ba pare un peu désarticulée mais euh, jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci transport les opérateurs privés dañ leen war a gën a encourager gën leen accompagner ñu gën a mën a moderniser seen parc gën a mën a rajeunir parc transport bi gën a mën a aussi yokk parc bi ba nga xam ne euh, li ñu ci bëgg dinañ ko am mais aussi euh, jàpp naa ne dañ leen war a encourager féliciter leen parce que gis naa ne du ñëpp ñooy def li nga xam ne moom nga décrire am na ñu bari ñoo xam ne dañuy wàccoo ak ak yi di def seen liggéey ci yoon ak ni ko yoon bëggee li ci des nag groupe nit boo gis bu amee téeméer dina am fukk wala fukk ak juróom wala ñaar fukk yoo xam ne euh, dañuy def naka sudul noonu ñooñu nag dañu leen war a wax ak ñoom wax ak euh, ñi nga xam ne ñoo dul def liggéey bi comme ni mu waree rek et puis ñu xam ne période bii ñu nekk période la boo xam ne metti na ci ñëpp mais état jël na ay matuwaay jël na 1000 milliards créé benn fonds de riposte et de résilience pour li nga xam ne moom mooy impact yi am ci secteur yu divers président cité ci secteur yi ba cité ci transport ñun ñu ngi commencé di liggéey di xool impact yi de xool déjà ñun suñu mesure yi ñuy jël nan lay yàqalee transport ak nan lay impacter sur la rentabilité donc ce qui est sûr moy bu soobee yalla ñomit même bu dee ñu ngi def service public bi de manière dégradée ak euh, peu de rentabilité nañ japp né ñu ngi def calcul yi pour que les semaines à venir ñi nga xam ñu ngi liggéey té ko ci yoon bu soobee yalla état bi dina am ndampay bu mu leen jox pour ñu mën a continuer liggéey bi parce que transport service public la état moom moo ko war a def moom moom moo ko war a def bon tey defu ko parce que ubbil na ko privé bi mu nekk euh, un secteur libéralisé li ci des nag mooy état dina leen accompagner kon nañu ànd ak dal rek bañ a yàkkamti di ut ay kii rentabilité xam ne état xam na lépp xam nañu aussi impact yi xam nañ ne ku war a def ñeen fukki nit di def ñaar fukk am nga pertement wu fukki nit loolu ñu ngi koy calculer incha allah les semaines à venir on va proposer le plan de résilience secteur transport au président de la république mu génnee xaalis jox ndàmpaay AFTU jox ndàmpaay Dakar dem dikk pour que ñu mën a ñu mën a taxaw taxaw bi nga xam ne moom lañ bëgg ci jamono yi nga xam ne jamono yu métti la ci ñëpp nag. alors monsieur le ministre yaa ngi koy wax mooy 1000 milliards yi président jël jagleel ko yenn secteur yoo xamante ni euh, dañ ko impacté par rapport ak maladie bi euh, wax nga secteur transport te ku wax secteur transport xam na ne ñoom euh, coow li dafa bëri syndicat yi parfois tiraillement lay doon alors yéen nan ngeen di mën a résilier loolu ba nga xamante ni dina dina mën a jaar yoon te du am benn coow si secteur transport bi. waaw moo tax déjà xam nga président bi mu jëlee fonds bi dafa nañ créer fonds bi mm-hmm. Euh, fonds bi wax nan lañ koy organiser ak nan lay fonctionner ak les procédures yi nga xam ne moom la ñu secteur par secteur pour que ñi nekk ci secteur bi réellement puissent bénéficier des mesures compensatoires C'est ce que, Inch'Allah, le président jox na ci ndigal ministre des finances ak ministre de l'économie pour ñu mën a toog ak les ministères sectoriels ba ñëpp xam nan la ñu mën pour que euh, li li li li li jóg pour Safara, J'angoro yi am ci secteurs yi loolu mun dem fi nga xam fofu la wara dem réellement te loolu ñun ñëm ñu ngi ciy liggéey déjà depuis une semaine ñun euh, équipe bu ak euh, direction des transports routiers euh, ñu ngi dajé di évaluer li nga xam mo nek ñu créer ben comité bo xam ni comité de veille et, et et et de suivi des mesures pour que comité bobu aussi nga xam ne ñun ñu ngi ci biir suñuy service de transport ñu ngi ci biir euh, police mu ngi ci biir gendarmerie mu ngi ci biir ministère de l'intérieur mu ngi ci biir euh, euh, chauffeurs yi ñu ngi ci biir à travers les syndicats AFTU mu ngi ci biir Dakar Dem Dikk mu ngi ci biir les représentant des taxi ñu ngi ci biir parce que dañ ko yaatal ba nga xam ne ku nekk sa secteur fa nga nekk di nga mën di remonter jafe-jafe yi di wax li ngay xaar ci yëf yi joxe say document tey jii ñu bari joxe nañ seen document yi nga xam ne ñu ngi koy analyser pour que tamit mu bañ a nekk document yoo xam da nga koy jox rek ñu transmettre comme lettre à la poste xam nañ réalité secteur bi xam nañu rentabilité car yi xam nañ li ñu leen di xaar ci euh, paiement yi nga xam ne ñu ngi koy def ñi nga xam dañu am ay taxi euh, seen euh, paiement yi ñuy def ci banques yi yi ñuy def ci seen concessionnaire et cetera loolu yëpp xam nañ ko donc incha allah dinañ ci jël ay matuwaay ba nga xam ne ñi ñu war a dàmp daal ñoom la effectivement. globalement monsieur le ministre mille milliards différents secteurs nan lañ ko mën gérer ba nga xamante voilà transparence qu'il faut dina am ba nga kenn du am kenn du am xel ñaar par rapport ak gestion bi. loolu que euh, kuy kuy 1000 milliards mo gëna a néew 4000 milliards budget Sénégal 4000 milliards donc c'est c'est un mini budget. pour un secteur précis. donc japp que né kuy gérer 4000 milliards. Euh, gérer 1000 milliards warul am ben ben ben difficulté. alors monsieur le ministre yow acteur politique nga êtes tamit maire de Thiadiaye ñu gis né crise bi bu commencé crise sanitaire mondiale bi bu mu commencé ba euh, président de la république ubbi ay buntu buntam ubbil ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk acteur politique bi amut pouvoir amut opposition ñëpp la dalal yow ban jàngat nga am d'abord si réflexion boobu. ah man li ma gëm mooy euh, moment bi benn ennemi la Sénégal am benn ennemi la monde bi am mooy coronavirus bi euh, bëgg a nërmeel sunu santé bëgg a nërmeel sunu ay société ba léegi ñi ñu nuyonté ñi ñu saafonte ñi meetuñu demal te diggalante bi euh, ñi ñu ngénte ñi ñu dem dëj nous euh, sax de transport public pour liggéey euh, moy suñu ennemi. donc président li mu def ni dañ koy rafetlu aussi ñi mu ñu dem wuyu ji leen dañ leen di kañ dañ leen di sant dañ parce que xeex bi président waru ci gouvernement waru ci ñëpp la askan la askan bi ñëpp ci a dugal kon dañuy rafetlu li nga xam ne euh, classe politique bi def nañ ko dem wuy ji président de la république déglu ko ci mesures yi mu jël léeg-léeg sax ñu defal ko ay contre proposition wala xelal ko mu jëfee ko loolu jàpp naa ne lu rafet la en tout cas wane nañ ne Sénégal encore une fois euh, pays démocratique la maanaam nit ñi nangu nañu am ay contradiction mais euh, bu lu am fulla am fayda intéressé nation bi dañuy ñëw taxaw donc la nation est debout à travers ses représentants, les leaders politiques, euh, le gouvernement, les députés, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, les membres du Conseil économique, social, environnemental, toutes les institutions, nous président, premier président Cour suprême, le président du Conseil euh, constitutionnel, nous sommes pour Djapati, Mbirmi, Konek, Fanga Fete, le euh, Sénégal am ci ndam nous, japp né inshallah buñu continuer ni à ah, respecter ce nga xamné mom corps médical bi wax mooy setal sunuy loxo moytu di dajaloo euh, ku nekk nga nga jàpp ne yëf yi warul jaar ci man pour law ci dëkk bi warul jaar ci man pour law suma famille warul jaar ci man pour law Sénégal jàpp naa ne euh, dinañ ci am ndam ci ci àpp bu bu bu bu bu gàtt gàtt gàtt incha allah ñu ngi koy ñaan di ko ñaan yàlla di ko di soñaat rek nit ñi ñu sàmmonte ak loolu. alors si contre yooyu nga wax ngir jeexal rek monsieur ministre euh, am na ñu ko proposé à ce que. Le fonds yi nga mom lañuy la transparence dans la gestion lu mata fait xel la. transparence mom le fonds yi di transparence defe euh, euh président de la république li fi ñëw depuis 2012 ci ay instruments pour transparence qui euh, naa musu ci fi Le code de transparence budgétaire defe mom incorporé créer des créer ay institutions euh, libérer yenn yenn institutions de certaines contraintes comme Cour des comptes euh, IGE etc. cetera pense naa ne li ci def ci liggéey euh, lu donc nous ñu profiter aussi je pense ci ci lii am pour def leneen lu dul transparence jaarale le ci yoon nous savons que post Covid 19 dafay am a. donc ce sera un moment de rendre compte. li nga xam ne moom la ñuy def donc euh, ñëpp dinañ ci taxaw ni mu waree pour que lépp jaar ci yoon euh, xeex bi buñ ci génnee ñëpp am ci ndam ñëpp siggi ñëpp kontaan loolu la ñu bëgg te xam naa loolu la ñuy doxal. monsieur le ministre temps bi jeex na lan ngay tàggatoo. maa ngi leen di sant di leen gërëm di waxaat encore une fois rek nañ sàmmonte ak prescription yi nga xam ne ministère de la santé wax nañ ko sàmmonte ak li nga xam ne ay mesures la ñuy jël ministre de l'intérieur jël ko sàmmonte ak li nga xam ne mooy ay mesures yu ministre des transports terrestres jël. loolu lépp bu ñu ko defee jàpp naa ne yàlla mun nañu dimbale dugal loxoom ci xeex bi ba Sénégal am ci ndab. mbokk yi doon seetaan Dakar Actu ñoo ngi leen di gërëm di leen sant jox leen dig daje beneen numéro Actu Débat merci beaucoup à bientôt.